jërë ngeen jëf mbokki internetu DS Prod USA ginnaaw ba ñu leen nuyoo dañuy ñëw ak yéen ci seen rubrique DS Actu Falla Paye lay wuyoo nekkoon ab docteur daan yëngu ci faju bëñ amoon cabinet fële sa sacré waaye ginnaaw bi nga xamee ne faat na ñetti doomam ñaar ñi doon ab jigéen kenn ku góor waaye laata muy xaru moom bind na fi ab benn lettre bàyyi ko fi bataaxal bi nga xamee ne Palla bind na ko toll na ci fukki page moom Palla joxañ baaraam ki nga xamee ne mooy soxnaam suñ fi bàyyi soxnaam soosee sax moo jur ñetti tuutànkam yooyee nga xam ne Palla faat na leen waaye dara warulu ko nee lu mu jàpp mooy soxnaam nit ku bon la ku ne du pën a secours Pala yemul foofu rek waaye mi ngi ñuy xamal ci bataaxal bi soxnaam soosee ku bon la ku yées koo xamee ne da koo bëggoon a jiital takk ko buum si baat di ko diri waaye loolee antuwul te Pala si boppam du ñu xamal ne bu bu doon tey du takk soxna soosee ndax ginnaaw bi nga xamee ne takk na ko si jamonoy 2004 ba tey jii nii sëy boobulee amul dara li nga xamee ne moom neex na ko si Pala waaye lu si gën a yéeme mooy ñi nga xamee ne ñoo dëkkal Pala ne seere bi benn kese la mooy Pala nit ku la amoon yërmande la si askan wi waaye li waral lu ni mel tamit lu doy waar ndax ñoom jàpp nañ ne yëf yi yamul foofu rek waaye ak lu si mën a am mbokki internet DS Prod dina leen toppal information yi ba keroog ñuy am leneen lu ñu gën a leer ñu jox leen ko seen site